ñoo ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla si seen mbooleemi xaal buñ taxawee ñu ngay tudd yàlla buñ toogee ñu ngay tudd yàlla buñ tëddee ñu ngay tudd yàlla te it dañuy xalaat ci mbind mi yàlla bind asamaan yi juróom-ñaar ak suuf juróom-ñaar ñu jàngoon ne xalaat benn génneel ko moo gën génn jaamu yàlla yi rek laa wax de benn bi xalaat waxtu gën jaamu ñaari at xalaat waxtu moo gën jaamu yàlla ay juróom-ñaar fukki at wuuteeg xaddis yooyu nag mu ci kenn wuuteeg xalaat rek laa wax de maqaama bu nekk rek waa lu ci xalaatee noonu la sa jaamu yàlla di fooree waxoon nañ ne mu ne léegi xalaat dana gën fuuf waaw dégg nga ak jaamu rek laa wax de léegi xalaat gën jaamu yàlla. من دخل الجنة جماعة من من الصحابة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة كنت يا عائشة رضي الله عنها على يتقدمون جيدا لين عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر دفع بس كنا النبي صلى الله عليه وسلم صحابة يدعني أنا من أمور الصحابة يقول لي عبد الله بن عمر مولد جيدا ಫಸಲ್ಲಮೂ ಇಲ್ಲೂ ಆಯಿಷನಿಗೆ ಆಯಿಷ ಬನ್ಯುವೇದಾದಿ ಕುನಿಯು wa sonayu ci sallallahu alayhi wasallam dañ la wax hijab muy ak muraay bu dox seen diggante ñew xam ñoom loolu wala bu leen taxawé qalat la aisha ne wala qawmi ana yenn nit ñuy nuyoo من أصحاب رسول الله يقول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إسكي بورمهم mbooloo xam ne ñoom ñëpp saxaaba yi ñu lañ ndaw mbooloo mu yiw fii naa nekk na suñ biir abdullah ibn omar abdullah ibn omar ndax moo leen jiite woon ne aïcha ne abdullah ibn omar malaka na lu ñeen laa tasurana lu kasiran lu bëri ndey ne abdullah ibn omar lu ndax da koy gis gis léegi xaala mu daal di wax laa ñeel ko rasul yonent bi sallallahu alayhi rasul yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaqulu mooy wax naan zuur na nga siyaare xibban ci jëllal te zat nga yokku xubban ci mbëggeel saxaaba yi ñu déggoon wax yonent lañ sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn omar ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay wax naan boo siyaare sa mbokk deel jëllal dee fa gëj ndax mu mën laa bëgg borom maqaama waxoon na ne weer wi dégg nga benn yoon rek lay fenk waaye su fenkee bala yàgg dootuñ ko gis dootuñ ko bëgg gisati dégg bu dana toog fukki fan juróom yoo xam ne kenn du weer waaye bu feeñee moom xilaal buñ ko séntoo benn yoon rek kenn duñ ko séntooti booy dikkal nit saa su nekk dañ dem duñ la bëgg a gis ndax doomu aadama bëggul lu jege bëtam waaye booy jëllal nag waaw raar si bët nit ñi bëgg dañ te lay waaw dañuy bëgg saa su nekk dañu dee tëg bët damaa demoon yàlla bi dee noonu lu ko yokk rek daal di ko daal di sor ci waaye lu ko jafe rek ñaareel waaw daal di rëy ci a yéen ci ne boo amee su nekk nga ko ziyaare tey jëlalal suba waaw ba gannaaw suba la daal nga door a demaat അബ്ദുല്ലാഹിബ്നോമർ വന്നിരിക്കുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബ്നോമർ പറഞ്ഞു ولكن وانا دعينا عبد من هذا اجلي بل وحده يب دنگا كنا لب عند لب من جئنا ذكر نسألك من جلال أنا أعجب شيء جلوك نهيبه رأيته اسمك في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صحابي يضرب لك بالقول يرجع محمد صلى الله عليه وسلم القمر laay ji ñu doon jàng bi war na ci kaw teen yoo xam ne yàlla rek a xam nu ne ay sutu ne ay sutu kaw teen boobu la xamal Hamza ne dañoo dikk pour laaj la li gën a yéeme ci li nga mos a gis ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faar sala mu daal di wattu dumu waaye moom bay waxee loolu rek day ay sutu commencé jooy ron xañee ndax nam mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak cofeel ci moom akit it xéem gi mu xéem ay xaalam moom yonent sallallahu alayhi wa sallam mënoo gis ku baax ba mel ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mënoo gis ku foor ba mel ni yonent bi rek laa wax de wa qaal mu daal di wax ne day achatu ne kullu axwaal yi mboolem ay xaalam ajabun kawteef la mboolem xaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kim taan la lépp kim taan la yonent bi bu ree ree kim taan la bu xoolee xool nga kim taan la bu doxee dox ko kimtaan la bu muuñee muñ nga kimtaan la bu ñaqee sax ñaq ba kimtaan la ndax moo dàq par foofu misk sallallahu alayhi wa sallam walakin waaye nag aajabu maa raaytu li gën a yéeme ci la ma gis minu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne am noon moom daxala xaye na alay ci man daata laylatin ab guddi fii naw ba tii sama dafa am guddi goo xam ne man maa aye woon yàlla sallallahu alayhi wa sallam daal di dugg sama nag fa la maa xaru ba ba mu nit ci man قالت الوالدين من يا عائشة يا عائشة أتاذني نقل ما يلقى قال لي يا مشي عباد سلاي ما يلا تبارك الذي هو تعالى كان كان يقول لا عائشة معايا يقول على محمد صلى الله عليه وسلم بمني من بجك يا عائشة منك عائشة ما يمدي لك مجام jaamu suma borom ndax may nga ma ci digal dana la wax a nga jëlaa xam ñaan ko ñaan ko ndigal ba may la ko moom la yonent def jaamu yàlla baax na lool waaye ki jigéen ñi takk dafa am àq ci yow waaw bu jëlaa xam lépp rek laa wax de loo ci jëlee ñaan ko ko loolu la yonent def nag day naa man laa wax bu bëgguma laa ne léegi il qurba lu may jege min ci yow day am ci ne maa ngi ci yàlla ba yonent bi jege la rek laa bëgg يوجد بيجي كذا لا كنت ولكن ما أزلت من نقل لك يلا من نقل لك من جامني سبورم آه نحمد شيء قلت يلا قلتم فتودع مدى الجبو مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم وقف متخو يبكي ديوي يبكي من يجوي من يرتب حتى وصل بم يقدمه ورمقا يمجاب إذا من عليه تفوت تخدر إذا النبي صلى الله عليه وسلم جابونك taxaw di jooy di joy ba boo ko xoolee rek dañ ko yërëm ma ngay jooy moom yonent bi ba raw xajaani waaw topp ca dox gare laa wax de sallallahu alayhi wa ba jële sa mu daal di toog wante jaam mu daal di tëdd laa xaj yi ci taxam waaw yëpp yi di jooy yonent gannaaw mu taxawee jooy ba boo ko xoolee ko dafa mujj toog di jooy di jooy ba boo ba ronkañ yi toog ci kaw suuf si ronkañ wala wal tajaa mu daal di tëdd nag laa xaddi ci lexam yal kii ma ngay jooy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xataa wasala ba mu yegg du mu waaye moom xajam ilaa ñoom ci suuf guddi gi yëpp ñu ne ko yonent nekkee taxaw di jooy ba nga yërëm ko mu toog di jooy ba nga yërëm ko mu tëdd di jooy waaw ba nga yërëm ko moom xajaane wadd si kaw suuf fa daxala mu daal di dugg yaa bilaal yuusi hoo di ko yëgal bi fajar yi fajar ci la bilaal dugg di yëgal yëgal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko fajar jot naa wara mu ngi ma bi yonent yonent bi bila ko ñu yonent yonent bi ak yooyu mel ci yéen fa qaala mu ko anta fa mën naa ko ya rasulullah bi wa qad allah yàlla la kay ñaata maa takkala wala jiit na min dambika sa bakar wa ma taaxara mun ba bi muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, sallam ne jooy borom ma ñaaxee wala ne ko def ak தேவையான தேவையான சொல்வாக்கார நீங்கள் எப்படி முடியும் காலை இருந்தன ஜாம்பிங்க góoragu la jéggal nañ la ko wala jéggaluñ la ko ana lu tax doo jooy soo ngir ragal yàlla yow jàmm bi ngir bëgg yàlla kaw tee tos ñeel la bët boo xam ne duub duur ronkoñ ngir fekk boromam waa aw ngir waaw bëgg ko rek laa wax de tos ñeel la xol du ngir ngir ragal ko rek wax de su sebagai jako si sama sehingga kam memori mone ke sakaram. Sebagai jako si jidien jani nga kam ni yone si sawara dunggal. Sebagai jako si malaka nga kam ne yuqis len. Dengan lol telur ni ala tan dere ni yang Wanda mana weli yang sompo bayi weli ala ode. Yurum sebagai bala afal mudah bad majoy. وقد انزلت وجميع ليس من اليله تبدي هذه الايه بلا ايه yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy jaamu yàlla boo xam ne laaya alquran bi yàlla wàcce rek yonent ko sallallahu alayhi wa sallam amul laaya alquran joo xam ne yàlla wàcc ko te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëfeewul ko moo tax ne yaay setu laajee lan mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf moo di alquran kanaa xamul ko alquran loolu li firi mooy bépp laaya yoo xam ne yàlla wàcce na ko bu dee santaane yonentoo ko njëkk a def bu dee tere yonentoo ko njëkk a baax waaw bu dee ak jubbanti yonentoo ci njëkk a jaar waaw bu dee waaw ak dige yonentu def na lu maye dige boobu bu dee ak tëkku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dina ko waaw bu dee ak bàkk yàlla ak tagg ko sant ko yonent bi bàkk na ko yàlla rek laa wax ne moom jikkoom lépp alquran la moo tax kay balaa ji wàccee yàlla ne na ngeen xelaat ci asamaane juróom-ñaar suufi juróom-ñaar yonentu dafa xelaat borom xañee wala daan ci kaw suuf mu ne manaq bu ma jooy te yàlla wàcce ci man guddi gi ne mooy defa ko wala jaam yi nga xam ne dana ñu xelaat fi xel ka sama waa ci mbir dama sama ne juróom-ñaar wala dee suñu juróom-ñaar moo tax ñu ngi doon xelaat doon xëy na wàllu. tawa ko la ci xelaat ak nit ñi ani dafa ko roo ñu xelaat fi xel ndaay ci ñu wa taala ka wala dee sa di doon ñu tegtal bii ci moom. alal ñu ëpp ci doomu aadama yi seen xalaat mooy ne yàlla bind danañ xalaat ci yàlla mi nga xam ne mooy tawal gàncax safal mooy taw euh, ndox daal di safal waaw gannaaw suuf si dee ñu xam ne yàlla mi def loolu bu la waxee ne la mën naa dee kenn loolu koo gëm danañ xalaat ci yàlla mi nga xam ne jël na doxam man yu sopp ko lu mu dee defal koy suux defal ko yàq defal ko yàqu defal ko gémmiñ asibat waaw weere melokaan bu yéeme génne ko muy beneen mbindeef di xale bu mun dara ñi di ko nampal wërsëg bi nga xam ne ni moom la doon dundee ba muy nekk ci biir yaayam yàlla mu def ci ab rapport bu yaay ji lekkee rek mu jaar ci waa rapport bu daal di ci xale ba ba mu génnee nag yàlla jël wërsëgam def ko ci meew yaay ci weer ak yaayam dégg nga xale bi seen commencé nàmp yàlla commencé di ko xamal waa ba mu fexee kenn waxu ko ne ko boo sexee wér mu mucc waaye xale bi daal bu sexee moom dara bu mucc meew génn ba mu demee ba nga xam ne dëgg na nag yàlla def ko sëgëm ci ay waajuram ñuy liggéey di ko andil di ko jox muy lekk di ko jox muy naan di ko xapp di ko topp ba mu dëgër yàlla def ko sëgëm nag ci góor góoram mu dem liggéey yàlla may ko xelal may koy dëkkuwaay may koy warwaay yàlla bi la defal loolu xam nga ne ಯಾಮಲ್ಲಿನ ಒಂದೂರು ಪೂರ್ವಾಂಗಿನ ಮಂಡಲ ಯಾಮಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಿದ್ವಿ ಯಾಯ್ ಎಲ್ಲನೂ ಪೂರ್ವಾಂಗ ವರ್ಷದ ಮತವೇನು ಚಾಲನು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಹೊರನ ಕೊನೆ ಬುರ್ರಾಗ ಮುಖ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಗುರುಮುಸು ಫೇಸ್ ಮುಂದು ಗಾಂಕರೆಲ್ಲ ಅವಳೆ ತಂಗೂರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಸತೆ ಗುರುಗು ಮನ ಹಂಡ್ರೆಕ್ ಗುರುಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಂಕರು ಮುಗ್ಗರ ಫೋರ್ ಬೋಯನಗರು ರಗಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಕ್ಬರ್ ನೋರಲ್ಲೇ ಸಿರಿ ಬೋನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಕ್ಬರ್ ಎಲ್ಲ ಮಗ್ಗು boo demee bay ragalee ragalal yàlla mi nga xam ne moo gën a màgg képp kuy màgg rek laa de mbugal mi ngay ragal ba tax ngay def naqari yàlla mbugal ma nekk fa yàlla moo a yàlla naan gën a màgg bëggal yàlla ka ngay bëgg la nga yaakaar ci moom ci njariñ njariñ la nekk ci yàlla moo gën a foor loolu yàlla akbar yéen ci yàlla Musa yàlla ne ko bul naa mukk ci pexem seytaane

والقاب قناة لين تكاوتي ويالي ليستدلوا كنو تكترون باسم من الخالق جاجي بالنجي وتفكر الخواص وإقلاة يالا تام يوم في ذات لا يموت جميع الذي تبارك ذنه وتعالى كونا هم نجام يوقم نجوم تن خاطر تيان رجلهم يوم لا يلا جميع من نور ما ينال كوان جيب فيد أما التفكر وإقلاة في ذات لا يموت جميع الذي فحرام حرام لا رحمتي شيء يوب تجيبني لأن الله نعم لا يقدر لا يقدرون لذاتهم أن يكيفوا جملا لا لا جل أن تبارك وتعالى تبارك التي جب جنا قمنا ليس لكل أحد من أين برك ولا كيف بجاجنا النكلا ولا قدمهم دد ومنتع ولا رأس بكم ولا يدان من نار إذا تفكر بخلات عامين بسربل في هذا تجيب

yàlla daal mooy koo xam dara mel ni moom noo ko imaginer rek da nga juum yàlla rek xam nu mel soo ko xalaatee daal baam noo ko misaalee fay xaw dana tàbbi fii maa ci nga xam laa yoo xam ni ko sant lu mën xew rek borom la boo xam ne moom rek moo fi nekkoon njëkk benn mbindeef bi fi rek laa wax de waaw te bu fi lépp jugee moom rek moo fi des te lu yëngu moo la yëgal lu dal moo la dalal lu am la amal lu la kuaku ko rewi allah aɗa yekkitimo ko waccimono waccirol tan ɗo amal ɗumi mana hamtumo amma alkhawasu wa ni ala ta tafaru ni ala en atafakkur wa qiraat fi zati lahi ci ñam yàlla tabaraka ba néew wa taala kawena am na jaam yoo xam ne ñoom mën nañ nañ loolu mooy ñi nga xam ne yàlla dind na seen kiraayam moom na yontu saatin heure xew gën mais salatin

ci xalaat boobu tiyaaba goo xam ne ëpp na jaamu yàlla yi xam nga wax de kuy xalaat ci kaw bi yàlla yi dégg moom it yàlla mën na ko dimbale ci la sellalam ak fooraayu xalaatam defal ko jaamu yàlla ay juróom-ñaari at waaye kuy xalaat ci péeb yàlla ba te fekk mën na ko yàlla mën na ko bindal jaamu yàlla ay juróom-ñaar fukki at rek wax de li ku li maqaamin ñenn bépp taxawaay maqaam wax jaamu yàlla yooyu bu ñu xalaatee ci kaw ci yàlla yi résultat bu ñu jëlee ci xalaat bu mooy rabbanaa yow suñu borom maa xalaqta bindu aada mbindeef di lee baatiran bi mu muy leen rek laa wax de yow yàlla jëloo asamaan bind ko bind suuf bind doomu aadama yi di leen dundal di leen rey waaw bi ñu gën di waaw bi waaw dégg nga tey waaw wërsëgal nit ñi ngir caaxaan yàlla su bëggoon caaxaan bu bind bindee bi bindu leen ngir xool haadal xalq bi leen bindee fi alladi ñi nga xam ne naraaw gis nañ ko innama xalaqtahu naka bind nga ko dee dula pour mu tegtal ala kamaali qudratika si sa kàttan bu mat gi laa am dasal waaye du ak fore laa waxee bind yàlla bindu bindee bi ngir xool daf leen bind ngir ñu jaamu ko